ndax bokkuma ci programme bi waxim la ndax fii nga ne maa fi ne waaye damay bañ Cheikh Bara Ndiaye miy jóg ba dem te waxuma loolu da nga tax ma jóg ah yaakaar naa ko de sabarak jee di mu jëg laa fay àndal bis bu ne waaye kii moo baax kii moo xam nu nuy baaxee kii mooy xam ne ni ànd jànkatu xasaayit ndax jànkatu xasaayit yi fi ne ñun dañu nooy yàpp ndax sunu ko woyof te ñooy mujj doon sëriñ nag jànkatu xasaayit booy gis buy tàmbali danaa daawaan ak daa dooj ay bokkam li cëpp danaa daa bañ tàng day taxawaalu waaye day mujj rek ku jàq ñëw ni ko jaanal foofu rek lay mujj waaye kii mooy bàyyi jàngkat yi waxuma ko ndax dalee na mag du yaat kii ajjuma junne buy ñaan di ñaan ba ajjuma këram lay recevoir ñépp ñëw lu nu ko jox mu woo muudu ni ko ñaataa fi ne xam nga man xam naa laa taa'ata li maxluuqin fi seeti xaaliq Seex Baara mi li muy baax baax sama diggante ak Sëñ Tuubaa doyuma ci daf ko def rek ma wax ko moom dong ma tax a jóg du leneen keneen taxu moom rek moo tax ma jóg si Xaadim maa ngi lay siyaare bu baax dama bëgg rek ñu xam ne yow foo ma fekk dinaa rus toog ba nga dem ca du ma wax jarul may wax li ma defal ndax su ma ko waxee mën naa nuru leneen waaye war na noo xam ne bi ma fi toogee ba tey ku ne wax na jóguma li tax ma jóg war na noo xam ne dara la bisimilah yeggaleen yoon rek ah, <laughs> xam naa ni Modou léegi dafa am ay jinne xam nga am na ñoo xamante ni ku taxook ñoom dangay def yenn saa yu baat na yoo xamante ni di nga fekk asgor fa mu toog nga dimbali ko ma taxawee nii sëñ Gora bismillah waaw ñii nuyu sëñ xaadim nag faaw nu nuyoo tax ak kii parce que man faaw ma jàkkaarloog sëñ xaadim ak Mbàkke Kajoor zumbake mba ku fa teew dexe woor mooy borom gàtte gi ak Mbàkke Kajoor داوت خبور mooy borom guy min yor na jaaga yaliyu bel jana kii du faaga Cheikh Mamadou Lamine Ba ولم جبير وقت سيما غاي بنغر نكوي لما تخرمي رجال يا خمنا درجام ونجل إني سفي جام نرم نرم دي سفي مام رامال كوار نخرمي جري جف أي كابلا بقول وصح وايه dama naa jiital lii dangeen di wax ci jëmm ji man nag kenn musta gis ma def lii ci àdduna du jël micro di wax ci kenn micro jël ko jàng xasaay teg loolu laa xam su ma jéemee la leen sax du ko mën waaye sëñ baara mi yàlla daa dogal mu yaroo ndoo den doon ay daara yàlla dogal ba ñuy nag nag ci xasida yi di jël ay école di répété yooyu ñu ko daan ànd ba yàlla dogal lii mu dogal ci moom ñun ñu yàlla dogal li mu dogal ci ñun waaye damay seedeel mbooloo mi nit ku am kóllëre gi nii barki sëñ Tuubaa nit ku baax ngi nii barki démb damaa woon ba ma ñëw mu yëkkati xaalis bu bari jox ma dama dama jënd oto barki Seexul Xadiim bu dul dëgg yàlla bu màgg suñu kër dama dama jënd oto yow da war a am oto waroo di luwee oto ki jëli taxi ba nii may waxee ak yow jënd naa oto maa ngi sama oto bopp Mercedes élégance laay dawal barki Seexul Xadim loolu nag ku la ko defal rek amoo fayam yal na yàlla guddal sa fan wéral say cër say xaalis ñu ngi lay def lii waaye nag as gor laa te nag jànkatul xasaayit laa nit bu la yëgee ba di la teral rek am na koo xam ne yëgul ne sax am nga ci àdduna kon bu ko dee def na noo feeñal suñu kan. nan dégg baas bi bu nu la ko aaye woon ca nga dégg Cheikh baar ci biir baas bi cam jëfal la lii da ngaa war a ñaaj yow madda spécial nit ñi. li tax ma bëgg ñu jéggal ma li daje ci man fi ne dafa bari te xam nga wax pour nga def ci accident dafa yomb. te constaté ko it day jafe te mu mel ni ñi miin wax a ngi fi wala ay waxkat a ngi fi te sama rakk ji wóoluma ci lii mu may defloo mbooloo mi it wóoluma ci ma wax njëkk siñ Xaadim di wax kon bu ma dimbaliwul rek du sotti te xam nañ ni bis bi teraanga rek ko waral maa ngi sant yàlla mi nga xamante ne ab dogal ci loxoom la nekk di julli ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ñoo ngi yokk suñu kóoluteef ci Ahmadul Xadim Xaadimu Rasulullah yaakaari jaam ñi. dégg ñoo ngi ndokkeel baax maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina. maa ngi ñaanal seex Cheikh Mouhamadine Mountakha sa borom yàlla yàggal ko fi te wéral ko ba naa li gaa yu baax yëpp mu yeggale ko ci sago te ñu ànd moom. maa ngi ñaanal baax sëriñ seex Jëmb Fall mi toog ci jataay bi maam Cheikh Ibrahima Fall bi mu yàgg fi. maa ngi ñaanal sama jàmbaar ja Cheikh Sirif Abdourahmane Fall Tilala Xaadimul Xaadim sama borom yàlla yokk ay leeram ak yërmandeem ci àjjana di ñaanal nag Sirif Abdoul mi nga xamante ni mooy sama yaakaar tey jii ak bu ëllëgee mu yàgg te wér te gën a dëgër te sama yàlla lafal ko cat Cheikh Baara Ndiaye maa ngi lay siyaare sëriñ Basiiru juuf maa ngi lay siyaare sëriñ Xaadim jinne siyaare naa la ngir seen Touba mi ñu la tuddee waaye rek ngir ragal jinne it nag léegi nag seex yëpp dugal naa leen ci siyaar bi ma siyaare sëriñ Basiiru juuf mi ñu yëkkati nag nga xam ne jànkatu xasaayit lan siyaare naa leen dugal ko ci sëñ Ablaay Sekk mi ñi nga xamante ni nag ñoo ñëw ngir sëñ xaadim siyaare naa sëñ xaadim kon ànd nañ ci ñoom ñëpp maxtaar foo dégg ñu ne njariñ a nga fa oto yi daan fa gaareendoo looloo dal sëñ taxa li tax Seex Baara biñ ko tuddee ñëpp ñëw di wax njariñ rekk la boo nee am naa sëñ Tuubaa te amaloo gaa yi njariñ gaa yi yem ci sëñ Tuubaa ba noppuuti njariñ waaye boo amee sëñ Touba am njariñ nag gaa yi dañuy am seen sëñ Touba ñëw ci yow wut sëñ Touba wutaale njariñ ndax njariñ kenn mënu koo ñàkk. Cheikh Bara nag mot jëg rek laa bëgg a dimbali ci li mu ma def loo ndax lottu ci moo tax may magam mu wóolu ma ci te man ñàkk jom bëgguma ci dara fi ne ba mënoon yëkkati baas bi yenu ko. yan ko sëñ Baara Ndiaye dama koy def ndax li ma sama rakk ji wóolu ca loolu la mu neex ma nag li ma ko defloo ndax moom da doon na réew Sirif Abdourahmane Tilal te àdduna ba mu dëj Sirif Abdourahmane ma ci gën a moo tax ma ñam lan mooy sëñ Touba moo tax loo ma bañ bañ xam ne ab Baay Faal ngee te loolu naar booboo mu doon wëla réew nag dib xaritam mu defaat nag ren lu rëy ndax sëñ ba moom fi ne dem na beneen sëriñ a fi nekkaat te nit da ngay doon terangam ak i noonam waaye doo doon ay xaritam koo doon terangam yaay doon ay noonam waaye xaritam nag doo ko doon ndax xamoo lañ séqoon lan la waaye Cheikh Bara moom jaxasoowul ak Cheikh Abdou Aziz waaye comme ñaar fukki fan yi moom moo doon bisub sëñ bi sëñ bi da ci wane dooleem bu ma saana dugg si dañ naan moo bëri doole ñu ne saa su yëngatoo ñu ne la ko yëngalu ko ëpp doole mu bàkk wane doole Cheikh Ibra Fall sëñ Baara Ndiaye ñëw ci ren bett ñun ñëpp jox sëñ bi xaalis bu bari man mu joxe ma xaalis noo xamante ne xaw moon nit mën na koo joxe nit xaalis man loolu ba tey def maa yéem façon bi ma joxe xaalis bi ndax man ñaanuma ko waxaluma ko lu baax lu tax mu war ma koo jox waaye xam naa mu ñëwante ma ak ñeme teraanga ak bëgg teraanga rek loolu tax boobaag tey ma lay soñ naan la nañ fa dem dama ko bëgg a sant waaye comme demaguma fa nag te jot naa micro bi ma far ko fi sant ndax suñ xaadim yi lu mu am am naa ca dara suñu xaadim gay mii lu moom am naa ci dara man dama koy gunge ba toll rek ci bunt bi bi ma joxee ni ma jox damaa jàppoon ni dafa juum jàng ya mu jëm la war a joxe enveloppe ba ma xool xaalis bi xam ni lii moom guddi maam seex baay Fall bu ko def ba jeexal ñu jox la lii moom sa korité dina neex moom noonu la def ak man léegi nag sëñ xaadim sëñ Baara Ndiaye enveloppe bii mu la jox ñaar fukki junni la loola nag da koo nuyook yow ndax bis dafa metti yow sax tàmm nga bis waaye bis ku am jom doo ko tàmm sama baay daf ma ne woon biskat bu la jekkoo dalay toroxal boo ko jekkoo nanga ko toroxal daal ni ma bàyyi ma ne ko faal mun ma xanaa xamu ne bis duma ci mere ku ñëwul ma ne ko lu tax bàyyi mun ma kon ñu ñëw laa yab ni ma ki ñëwul ba tëdd këram naan bisub sëñ xaadim ba yàlla na yàlla na fooyoo yàlla na bon yàlla na yàqu bu ma am nit Cheikh Baara Ndiaye sol mbubbam ànd ak ku nitam ñoo jox ma enveloppe bu may meree kee sëñ Baara mii laa yab saa baay ni ma bàyyi ma ni ko faal mun ma ki ñëw daaneel mbana yi xem bi taal bi fay ko sax kontaan naa ci moom ndax xalaat na ma ba ma tax koo jóg kon sama baay waxul sëñ de mi moom mi joxe enveloppe waxu ko nee na ki daaneel mbana yi xem bi taal bi fay nee na kontaan na ci moom ndax mu xalaat na ko ba tax koo jóg daal di man de Malick ku ma def loolu ma sant la kon waxul ki ñëw moo tax man du ma mere kenn ci sama bis léegi nag sëñ Baara 100000 la joxe ku ma koy jox waaye na ngeen bind nag enveloppe bi moom joxe na ko mi ngi nii nee na jox na la juróomi tonne ciment ci lii ngay def takat noppi wut te bàyyiwul. ndax moom tànk yaa ngi defal diine mu nekkal yow ci diine ndax Cheikh Sidi El Muxtaar moo ko dimbali te doom ju nekk la nga nàmp moom ngay taxamti ko looloo ko dal fi mu ne loo ko bañ-bañ boo ko gisee sa xel dem Cheikh Sidi El gis nga nit ñi xanaa xamoo ni mbëgg suukar takkantaan la tuddoon ma nga woon ca garab ga bi mu bëggee suukar la ñëw ci ci keesu suukar si nekk ci biir suukar si rafet di leer xet ñu mën koo dugal ci armoire bi léegi ñu koy climatiser ndax mbëgg tur wi rek léegi day nekk ci kees gi nekk ci biir armoire bi ci sañ xaarim taal clim bi tegat kenn du ko tàpp mosoo gis kuy tàpp mbëgg suukar da ngay faxas rek li mu bëgg a tax tàpp mbëgg suukar du ko jar ndax màttu la moom da ngay faxas rek mu dem fexe na ba nduróog Seex Sidil Muxtaar waaye am na jom nag ndax bu ñu lay nuróolee gaynde te ndaje moo dem daw nuruwoo gaynde ñii gaynde gayndeelu sax bu ngoon jotee ña ngay ñaxal di di di di bëmb di matte di gàjje di ñang-ñangulu ngir bëgg nuru gaynde te bu guddi jooyee guddi jotee ñu reere cere tëdd nelaw waaye bi ñuy bëgg nuru gaynde nag moom dañuy dañuy dañuy ŋar di matt di gàjje dañoo bëgg nuru gaynde rek moom fexe na ba la doon wax naan boo bëggee bëri ndox maxtaar dangay ngay jaxasee géej boo jëlee sa pot potu ndox sotti ci biir géej géej du jeex te ndox du jeex tey waaw yow yow yow Cheikh Adama caat mu bëri njariñ mi yàlla nga gudd fan sama rakk jee na ma ko ñëpp ñaanalal boo amee jom da ngay topp sa mag gis nga nit boo amee jom magam lay topp boo toppee sa mag ci ngay respecté sa baay xanaa xam boo yebee sa baay ngay yeb sa mag waaye ku bëgg baayam yeb bëgg magam xamoo lu tax yàlla jiital sa mag di te sa baay rek ko Cheikh Baara yàlla na nga gudd fan nit bu am maanaa nga murid yëpp la bëgg gis nga fa nga nekk sax ñu la fay gis mosoo faa wax lu manqué mosoo koo def te ñu ñëw sa kër ñëpp fonk nañ la te man nag li tax doo du ma wax ci nit lu ma gëmul loolu Sëñ Tuubaa daf ma cee dimbali bi muy jox nit ñi fàttewu ma masin bi ma sol maa ko xotti maa ko sama dooma ko ñaw am naa ay soxna am naa set léegi kon xanaa maa ngi bëgg a sant oto bi ma yor maa ko moom lu may fen lu xew sama sëriñ ñi ko yaakaar ñoom nee na maay seen jëwriñ lan moo xew lan la mënumaa sant yàlla kon lu ci xew ba may yokkal ay nit ay waxam pour lan non duma ko defal ku yàlla bind lu xew lu maa ngi sant jeeg ja kër ga man lan nopp te sëriñ ba man la jiital te mbub mi maa ko moom lan moo xew lan la cotisé wu ko lu ma waxal ni dëgg la xam nga lu tax ma def alerte bi damaa def alerte damaa sànni bomb dama bëgg nit ñi bàyyi ma xel kii laa bëgg a waxal alert laa def damaa bëgg ñu xam ni man mii di wax géwal laa nag njukki laa dëkk may mbokkum géwal yi waaye waxuma loolu kii fi mu yem ci lu baax bu ne woon damay delluwaat ginnaaw ngir fa ma déparé woon ci lu baax bala moo yegg foofa àdduna tukki sëriñ xaadim Gueye laa bëgg a wax góor a jum mii ma jox xaalis bi mu ma jox li ci moom ci xasaayit yaa ko ci def taxul ba tey nga bangi bangi ñi fi mën a way ñëpp yaa def ci ñoom xasaayit te taxul nga bangi bangi maxtaa danga may jox xaalis dama bëgg ñu jox la ko gisal gis nga fii ne am na loo xam boo ko waxee sàmm bi sàmm sax mu sànni law yatam barke sëñ ma maa bëgg lii mu wax su sunu waaju baax ji ku jóg jox ko yàlla na nga fekke déwén doo fi jeexal dara ci barke sëñ Touba kenn kenn ci ne ñëpp jóg jox ko ngir jëmmi sëñ Touba tere la ko sëñ Xaadim Gueye mi lu baax li mu ko wax ñu leen waaye ana jàngkat yi ana bàcc jóg leen ana am sa jóg leen ñëw leen am am am Cheikh Bara jox na la am ñëw leen ku ko jox yàlla na ko jox déwén doo fi jeexal dara ci barke Sëñ Touba jóg leen soxna yi jóg leen jërëjëf am am cim ah ki ñaan waaye cim ah, ah jox leen ko waaye barke Sëñ Touba ku ko jox yàlla na nga fekkee déwén. maa ngi ñaan ko ko jox yal na nga fekke déwén ci barke sëñ Tuubaa te doo fi jeexal. mag jox na ma addiya xam nga sëñ xa sëñ sëñ Xaadim sëñ xaalis bii mu ma jox da cee tiitaru ne kii ñu ni man la roy bay ndaanaan moo tax mu tiitaru addiya ji bokkul ak addiya yi ma gaa yi jox moom daa tiitaru dafa am gor su baax xàmmeewu ma ko nim ma ko joxe daf ma ni lii ma la jox addiya yéene la. murit xaw foo nekk yàlla na nga gudd fan jërëjëf wax boobu jàpp naa ko lool man xam nga duma ma jànnaxe dara fabbiwu ma man li nga wax jàpp naa ko téye naa ko yàlla na nga gudd fan ci barkeb sëñ Tuubaa seexu naa yow rek laa bëgg a waxal mësumaa gis ku ëppe doole ni nga ëppe doole ñi ngay ànde ba noppi wàcc ba tolloog ñoom xaar leen mosoo cee wax kenn lu ko naqari mosoo ko cee def nit Cheikh Adama maa ngi wax li may ñor te ñaanaloon naa la nga nga nga ànd ak sëriñ bii nga àndal ngeen di yàq samay wax di ko ruube te man fi ne jàmma paaka sax moo ma gënal ruube samay wax teew sama rak nga dama laa bëgg mais sëriñ bi moom mi ngi may rubee moom sëriñ bi di nuyoo sëriñ bi moom mi ngi may ruube waaw sëriñ bi dëggal na boppam sax di nuyoo mais mi ngi yàq jàng yi sëriñ bi waaw dafa dëggal boppam waaw sëñ Mbàkke dafa dëggal boppam ak a mën a jàng sëñ Xaadim damaa bëgg ñëpp bàyyi ma xel man danga ma marqué parce que danga marqué sa époque man danga ma marqué man yow dangaa marqué sa époque dara jaral lu njëkkante te moo ne yéen kat war ngeen dalal seen xel sëñ Ablaye Seck day def tournée ba tooy dem jënd kell ak bisaab jàmb di naan tooy nga def tournée ba tooy dem jënd kel di naan ak bisaab di naan tooy sëñ góor jum def ko sëñ bàcc jóob def ko ku ne def ko xasaay di des fii ay jibiwaay ku ne def yéen ñëpp ngeen tooy te mënu leen a gulee jeexal xasaay bi li sëñ bi bind mën a guleen koo jeexal te ku ci wax ñu teral la yow li nga def ay jàngkat loolu dong bu la ko sëñ Tuubaa fay waratoo sonn yow bu la neexoon nga bàyyi am njàng li nga créé ci ay jàngkat la wax ay leader jërëjëf ay leader nga créé waaye woo ay awkat de waxuma awkat awkat ak jàngkat bokkul awkat du doon jàngkat yow fabrique nga yor fabrique ki mën a xanaa xamu ne ki mën a jàng dëgg mënta aw xamu leen loolu parce que aw njolli la ak mbaar ak mbëpp ak mbëfër bokkul ak leader ba tey xanaa xamoo ni gungekat bokkul ak ki jiitu dafa am ñoo xamante ni bëkk néegu liñ ci man benn man laa ilaha illallah li ma mën ci bëkk néegu dafa jeggi dayo am naara ma ci forme man sëriñum naar laa am li ma mën ci bëkk néegu ak protocole dafa jéggi dayoo waaye du ma sëriñ benn waaye laa nii rek mais du ma doon sëriñ pour sëriñ ñii amay taalibe ak ñaan non doo ko dégg mais xeetu bëkk néegu nag dama ci am may yow danga nga ay leader sëriñ góor a jum créé na fukki nit yoo xamante ni moo tax ñu mën a jàng te yow la doon téyel sàkk sëñ bàcci jooba tax a jàng ci réew mi yow la doon téyel sàkk Mor Gueye mii kenn yabu ko murit saadix la yow la doon téyel sàkk bi sëñ xaadim awootul sax xaadim mbubb mi bi mu awootul géewlu VIP la ak Maxtar Fall mii yow danga nga créé yow fabrique nga yor mais laabir gi nga laabir waaw xam nga dama wax ni moom mooy tiitaru Maxtaar boo yoree lu diis nekk ci kaw étage bëgg koo sànni te du toj da ngay wut lu nooy lu ko amortir Ablaye sekk mooy amortir bis bi sëriñ mu Gueye sëriñ Muntaxa na gaa yi bàyyi xel ni yàlla nga am ngërëmal Sëriñ Tuubaa amin waay li nga wax dara gënu ko wér amin lim kere kenn kere ko ci jàngat jërëjëf maa laal fa ma nekk jërëjëf jërëjëf jërëjëf ay waay waay waay déggal murid bi li ma ñaanal ngërëmul sëñ Touba seexu naa faaw nga gudd fan yow boo deful bis bis pour alxuraan looy defati wax ma looy defati bu dee defoo bis pour alxuraan lan ngay def xam nga sëñ Muntaxa lu mu wax daf ne am nga xaas ci soxna si am xaas ci xaside yi léegi boo defoon alxuraan looy def ku ko am xaas ci xaside yi léegi looy wutal ci xaside yi xaas fa la yëf yem di waaw doguma la mhm. euh, bi ñuy ñëw léegi ci oto bi dane sëriñ Touba mhm. ay jàmbaari kese la defar mhm. seexi sëriñ Touba yi li sëriñ Touba defar kenn ku nekk yenu na jamono waaw kuy xoolee kooku jëw topp xasidaam yi di jàng defar gi ngay defar moom la ñu doon wax léegi ci yoon dëkk yoon wi bi ñuy ñëw kon kii ñi mu defar noonu rek la mën a mel. jërëjëf sëñ Xaadim xaas bu ko nit xësee am xaas mooy terminus xaas bokkul ak ngërëm xaasa man ngërëm yow xaas nga am ci soxna si soxna jaareetullahi mariama jigéen gi man ñëpp moom lañ ne am nga ci moom xaas léegi nag xaas bu ma leen koy limal ñi xamul loolu euh, banque bi moom Cheikh Bara Ndiaye mën na faa dem ndax dafa am compte waaye mu rang ba nag du ca mën dara sëñ Ablaye sekk dem fa am fa compte rang ba du ca mën dara faaw mu rang rek waaye bu demee ci compte am jël lu ko neex sëñ Basirou am fa compte waaye nag du mën a ñàkk bañ a rang ndax ay nawleem rek la gis ñu gaara seeni i 4 yu mag yor seenub xaalis xëñ parfum yi cher am ay millions yu bari léegi nag sëñ xaadim gay mi war a rang nag moom bu amee xaalis si soxna si day dajeeg directeur bi mu génn daan ah wa sëñ xaadim kaay ñu dem sama bureau nga xam ni moom ki ko war a fay da koy woo ci bureau bi mu ñëw mun ko demal fayal ma sëñ xaadim dafa am waxtaan bu ñu yeggali ma moom xaas boobu nga am ci soxna si waa léegi boo ñëwee ba ndakaaru Grand Yoff gi ñu ay reykatu nit a fi nga bëgg a weddi loolu tudd sëñ Touba di jànkatu xasaay boo ñëwee alxuraan nga fi blasé alxuraan rek nga mën a def mënoo def leneen alxuraan rek nga mën a def mënoo def leneen loo fi mënoon a wax leneen lan amul am nga xaas ba noppi calee léegi alxuraan rek moo ci des léegi nag ki ki nga xamante ni mooy sos alxuraan turandoom moo man ci alxuraan moo ko moom ah si Ahmadou Khadim Ndiak yaakaari jaam yi moo moom alxuraan ñu ni fan la dëkk kat moom ñu ni Touba kat ndax daaree kaamil moom ba àdduna sosoog tey Touba rek la mës a am ñu ni fa la dëkk jërëjëf sëñ Mor ñu ni moom nan la ci demee ba mën a moom lii ñu ni Cheikh Adama Gueye katay maamam doy na sëkk Cheikh Adama Gueye nag maam Cheikh Ibra Fall ni tool yi mbaabu yo kat heure ma fay jaar damay summi samay dàll wàcc samay fas womat ko ba yegg ndax Cheikh Adama xanaa boo jàngal woon xasaayit amoo xaas ci soxna sax ñu siyaar la ngir seex Adama waaye loolu bu ma la ko bañal man am naa maam nit koo fi gis am na maam maam Adama sax nee nañ Seydina Muhammad tey maamam loolu na téere yi wax du lañ wax waaye nit bu mu bu mu am complexe ci maamam sa la Cheikh Ibra Fall mi wane yëf yi sa maam a ko man ni ko sëñ baa ngi nii xet ka moo ko xeeñ rek mu dem ca moom sa maam yow dafa doyul Cheikh Mamet monsieur le maire yow la mën a àndal monsieur le yow la war a àndal ci diine xam nga lu tax moom bi mu dee maire ci sama kaddu laa woo lay Thiam muy magam di xaritam di baayam Ablaye Thiam ni ma maire dina ñëw fekk sëñ Xaadim fa mu ne la ma waxanteeg moom nag du waxi micro waaye bi mu ñëwee jël engagement yi mu jël dara ratewu ci posteurs yi ngeen fi gis sëñ Ablaye Thiam a ko fi def lii ngeen fi gis maire ko def te sëñ Xaadim mi moom laaju ko dara ndax moom mënta laaj yàlla da koo joxe loo waaye mën na ko macha allah te moom du daw kuy laaj ku laaj la mu jox la ndax moom daa bëgg nga jël ndax moom mi xàlliyu la moo tax yow rek yaa mën a ànd ak maire ndax yàqaloo ko dara keroog bi la maire di woo ñoo ngi toog amul dara lum la wax nga di diital te man xam naa ko ànd ak kilifa di bëgg a wàññi jëfam bi maire mënee yokk it engagement bi nga fi jël maire waxula ko dix tonnes ciment jël naa ko bu ñu demee ca maire nag lu mu yokk moo ko yokk kenn ëpp la xol boo demee nga ni maire ñun dofuñu jinne jàpp ñu ñun ku ñu tooñ nga baal ñu yow la neex ndax lu ñu def ñoo ko tey neel maire sant nañ ko bu baax moom nag nee na bëggul doonaat maire mais yëf yi du foofu acier mooy jàpp weñ sëñ xaarim du jël micro di ko di ko ñaanal déedéet xam nga tax du ko jar moom xaas la am day dugg ci biir xaas ji du def bis bi tey bëgg koo yaatal déwén di wàcc loolu mënul nekk di <laughs> def bis bi ren te yoonam nekku ci nag deux jours avant bis bi lañ ko ko wax mu jël ay responsabilité mën na koo def après mu wàcc pour lan loolu mënul nekk de sëñ Muntaxa du koy waxantu moom mooy sëñ nit ñi nag bu lay neexee par parloo waaye sëñ Tuubaa moom amul droit bi kon sëñ Xaadim damay joxe bi sax waaye dafa am ñoo xamante ni ndax fi ne fi Seex Baara teg affaire bi ci ay ton ki am 10 000 te bëgg koo joxe dootu ko mën a joxe ndax day kersawu ndax Seex Baara moom dafa ñëw ci yëf yi yóbbu baar bi foo xam dafa xaw a sori sëñ Basiru te murid yi nekk fi nag te murid yi tamit am seen ñaar téeméeri ak seen ñett téeméeri. te ko koo joxe ci ciment bi sëñ xaadim yow jox ma ñaari tonne ciment ndax man tam damay laaj te duñ ma gàcceel jox ma ma damay laaj affaire ciment léegi affaire wax lu baax jeex na affaire ciment laay laaj bu ma laajee ciment bi jox leen seen rajo dem jox ma affaire ciment la jëlal ma xaalis bind ma affaire ciment laay laaj daal yéen sëriñ si ngeen ñaanal ma ba li may laaj ma am ko dimbal leen ma rek sëñ Ahmed Diop ah waaw man sax